dégg naa nag journal bu bind ne oustaz yi seen tere la mais ñii kenn mënu leen fay. wallaay kenn waxal de man allamaka harfa bul wax maa lay waxal. merci merci bul ŋaan xam nga lu tax ous euh, Pape Cheikh. oustaz euh, Pape xam nga lu tax. Euh. moo wax la lu yonent bi wax. lu mu wax nee na ku la xamal alif. Pape Ana la jàngal benn alif. wala Tayib Socé jàngal la benn alif. wala soxna Aysatu Bintu Jóob jàngal la benn ali jàppal ne mooy sa sang imaamu Ali nee na su ñàkkee dépense jël la jaayi nangul su la defee jaam nangul su la gorelee demal man allamaka harfan waahidan fa huwa mawlaak ki tax ñii kenn mënu leen fay gën jaamu ko sang la jërëjëf dama ne ñii kenn mënu leen fay xam nga loo ko tuddee mhm. bu leen ko tuddee ti yéen ñii conférence fay tuddee leen ko suukaru koor ok ok. bul ngaa ngi ok. Euh, oustaz dafa wax oustaz dafa wax lu am solo.